sëriñ Alioune Diouf Serigne Alioune Diouf mi ngi gane àdduna ci atum 1850 ci dëkk bu ñuy wax Lambaye Dieng bokkit ci tund wii di Lambaye Serigne Alioune Diouf doom la ci sëriñ Birama Joor juuf ak soxna sii di soxna kumba naar njaay moom sëriñ Alioune Diouf mi amul kenn kum bokk ak soxna kumba naar njaay mii kon benn doom la ci soxna kumba naar njaay sëriñ alin juuf làmbaay njaboot gim bokk ay buur lañ woon ci gàttal jaraaf bawal lañ leen doon woowe bokkit ci njaboot gi ñuy wax kër yugar juuf di njaboot gu ràññeeku ci tund wow di làmbaay njaboot googu mu bokk di njabootug buur taxoon na lii di lislaam dëgg-dëgg yitteelul woon famille boobu kii di maamu sëriñ Alioune Diouf làmbaay bi mu génnee àdduna di Samba Xoyaan Diouf booba moo nekkoon buur ci tund woowu dañoo fob nag lii di nguur gi nangu ko ci waajur sëriñ Alioune Diouf di sëriñ biraama Joor juuf mi ci misaal jox ko kaneen ngir mu wuutu waajuram wi ci diggante boobu ñu fa fabe nguur gi nangu ko ci loxoy waajuram wi moom sëriñ Alioune juuf Lambaye diggante Kajoor ak Bawal nag amoon nañ lii di ab xeex waaye ci xeex boobu li Lat Joor rey ci xeex bi moo ëpp fopp li Bawal rey ci misaal Kajoor moo gañe lii di Bawal loola nag tax na tund woowu waxtaanaat ne nañ fa baat lii di nguur gi nag delloowaat ko ca cislaay la cislaay la nag mooy waajur sëriñ Alioune juuf Lambaye mii daa nag wuutu waajuram nguur gi kat moom moo ko waroon a yor biñ ñëwee wax ko sëriñ Birama Joor Juuf mi di waajur sëriñ Aline Juuf ci la leen di xamal ne moom daal jamono ji yéeg na laneen ci xolam te mi ngi xalaat laneen lu dul nag nekk fi di falu buur ci misaal daal mu mel na dafa delloowaat nguur gi ñu xool ci ku leen neex ñu joxaat ko ko nekk fi daal di falu buur du yitteem ndax mi ngi yëg laneen ci xolam loola nag mooy lii di lislaam ci la bàyyi koo ci tund wow di làmbaay dem nag ci suuf si di kajoor ci dëkk bu ñuy wax xandan ngir fas yéene nag tuub nekkub jullit nitug diine kii ñuy wax sëriñ mortaay la fa sëriñ biraama joor ju fekk si woon bam demee itam tuubal na ko dugal ko ci lislaam ci dëkk boobu nag ci lañ fekk ku doon jàngale alxuraan tudd sëriñ du sëy sëriñ du sëy moomu nag moo jàngal kii di sëriñ Alioune Diouf làmbaay lii di alxuraan juróomi at sëriñ làmbaay def na ko ci dëkk boobu ci biir juróomi atam yooyu la tombeek maam Cheikh El Hadji si Sy sanc nag dëkk bi ñuy wax jak saaw ci diggante boobu itam nag la waajuru sëriñ Alioune Diouf làmbaay mi génn àdduna di sëriñ Birama Joor juuf sëriñ Mortaay wax ne sëriñ biraama Joor Diouf nii nañ ko jël denc ko ci dëkk bi di jàkk saaw ndax moom xam na ne tund woowu daal dëkkum maam Cheikh El Hadji boobu moo yor suuf si gën a sell ci tund woowu kon Lambaye ñu denc ko ci dëkk boobu di Jaksaaw ginnaaw bi sëriñ Alioune Diouf Lambaye nag dafa bàyyi ko ñibbisiwaat ci fi mu cosaanoo di tund wii di làmbaay ginnaaw bi nag jàll na ci dëkk bu ñuy wax jaxal mi ngi ci suuf soosu di Bawal fekk fa ku ñuy wax sëriñ ma Mandiaye Baye sëriñ Mandiaye Baye moom nag jàngalekatub xam-xam la woon ginnaaw bu mu waxtaanee moom ci la ko sëriñ Mandiaye Baye ne alin juuf yow am nga lii di mokkaluk alxuraanul karim te samay doom bëgg karim te yow bëgg nga jàng lii di xam-xam kon daal ci misaal jàngalal samay doom ma jàngal la sëriñ alin Diouf nekk fa di jàng ak a jàngale ci sëriñ ma Mandiaye Baye ci dëkk boobu di jaxal la am na génn guddi kii di sëriñ ma Mandiaye Baye woolu kii di sëriñ Alioune Diouf ne ko bi nga may jox sa bopp de yaa nekkoon samay gàll ma nekk sam sàq waaye fan yi yëg naa ci yow loo xam ne nii bàyyil ma nekk say gàll nga nekk lii di samam sàq wax jooju nag jàpp na kii di Diouf Lambaay waaye munta tontu ma Mandiaye Baye bi mu fanaanee nag ba bët set la jóge nag ci dëkk boobu di jaxal ñëw nag ci dëkk bii di daaru mbay fekk fi ku ñuy wax sëriñ moor maane mbay ginnaaw bu mu ko nettilee lii ko sëriñ manjaay baye wax ba noppi ci diggante boobu nag la fa sëriñ baabakar njaay cargaan egsi ñoom ñett ñu nekk foofu ci daaru mbay ginnaaw bu sëriñ baabakar njaay cargaan yëgee lii sëriñ manjaay bayee wax lii di sëriñ Alioune Diouf Lambaye sëriñ baabakar njaay cargaan dane ko Alioune yàgg naa laa wax bàyyil manjaay baye mii ndax xam kaa ñu dem nag ci fa ma jëm di ki nga xam ne nii moom mooy du bàmba te kooka manal na la àdduna manal na la allaaxira waaye ma njaay baye mii soo ci nekkee itam mënalu la lii di dara kon nag ma wax leen li indi sëriñ Alioune juuf Lambaye ci atub ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim ginnaaw jaar jaar yooyu yépp mu am ci daaru mbay googu nag lañ waxtaane ñoom ñett ñooñu muy sëriñ Alioune Diouf làmbaay sëriñ Babacar Njaay Cargaan ak kii di sëriñ moor maane mbay ñu jàpp seen yoon wa jóge foofu ci daaru mbay ñëw nag di fekk si ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddim ci dëkk bii di ngaabu lañu fekk ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim daadi nag jaayante ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddim nekk nag lii di ab murit sëriñ tuubaa seexul xaddim téye ne leen fa ci diirum ñaar fukki fan ci ngaabu googu di xool ñii ñooy kan ak ñoom ñooy ñan ci diirum ñaar fukki fan yooyu la woolu kii di sëriñ Alioune Diouf Lambaye ak kii di sëriñ Babacar Ndiaye Thiargane seexul xaddiim daan ne kii di sëriñ Babacar Ndiaye Thiargane yow de dafa mel ni am na faneen foo jaar fu dul fii ci man ci misaal maanaam am na faneen foo doon liggéeyale suñu boroom sëriñ Babacar Ndiaye Thiargane ne ko waaw foofu ci mexe làmbaay jaar naa fa ci sëriñub soose bu ñuy wax seex Boubacar Cissé sëriñub soose la bu daa jóge ci dëkk bii di ñaame su masaa ñëw ci tund woowu di mexe làmbaay man lay àndal di wër di ñaanal buur yi dag yi ak dammeel yi moom ndaal laa daa àndal di ko yoral lii di ay bagaasam moom sax moo ma wax ne Babacar dama lay sonal de waaye man mënuluma laa añal mënuluma laa reeral ki la mën a añal wala mu man laa reeral ku ñuy wax Moodu Mbàkke la tur wi luñ ko soppi soppi Ahmadu moom dana ca bokk kooku daal Babacar moo la mën a añal moo la mën a reeral waaye man mii dama lay sonal rek soo delloo nag ci dëkk boobu di mexe fii ak juróomi at danga dégg turam bi ma déggee sëw tur nag ci laa la seet si ngir li ma Cheikh Boubacar Cissé mi wax ci yow ci la ko Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ne bi ngeen mënee jàpp loxo ci laa xamee ne yaag Aline juuf làmbaay mi wuute ngeen ndax yow yaa ngi mel ne bidongub diw buñ duy ba ca baat ba te Aline Diouf mi ci moom dara kon yow dama lay ñaanal nga delluwaat ci tund woowu di mexe te Alioune Diouf làmbaay nag ma téye ko fi wéy di ko defar ci la sëriñ Babacar Ndiaye cargaan nag delluwaat ci tund wowu mu nekkoon sëriñ Alioune Diouf làmbaay des fa ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddim sëriñ Touba defaat na ngaa bu ab diir ginnaaw ba nag la fa bàyyi ko dem nag ci dëkk bi di ndar àndoon nag sëriñ Alioune Diouf làmbaay bi demee ndar nag da fa bàyyi woon moom jéggi dex gi dem dëkk bii di xumaaka juróom benn weer la fa seexul xaddiim def sëriñ Aline Diouf mbay ak ñeneen ñim àndaloon nag doon def saa bu ñu xëyee wër ndar googu nag di ko yelwaan def nañ ko ci lu tolloog diirub juróom benn weer fukki fan ak juróom yu ne kenn jéggi dex gi dem it li nga xam ne nii moom mooy àddiya yi ku baax ki sëriñ Tuuba seexul xaddiim bi juróom benn weer yi mate wala laata muy mat la seexul xaddiim yónnee ci ndar googu wax ne sëriñ Alioune Diouf Lambaye na ko fekk si ci dëkk boobu di xumaag ci réew moomu di gànnaar bi sëriñ Alioune juuf Lambaye ñëwee wuy si ku baax ki sëriñ Tuuba seexul xaddiim seexul xaddiim dane ko kaay delluwaat nag ci sa tund woowu di làmbaay suñ boroom xamal na ma ne moom gërëm sallallahu taala alayhi wa sallam itim gërëm na la man mii di xaadim rasul gërëm naa la ca jataay boobu la sëriñ tuuba seexul xaddim waxe sëriñ Alioune juuf làmbaay ne ko soo demee ci tund wow di làmbaay lépp dana la fa fekk soo eggee itam ñett nga fay fekk mooy ki nga tollooloon ki la ëppoon ak yow Alioune Diouf ki nga xam ne nii yaa ko tane woon yooyu nga fay fekk ñett yooyu nag sama ngërëm dana la la tàggatal ñoom ñett ñépp ba boo toogee ci kaw ca suuf la ñuy toog sëriñ Alioune Diouf làmbaay bëgg a jóg dem seexul xaddiim na ko toogaatal Alioune Diouf soo demaatee ci tund woowu di làmbaay danga fa fekkaat yeneen ñett benn bi mooy ndox bi ci des mooy suuf ñetteel ba mooy lii di garab ñett yooyu nag du alalu kenn kudut suñu boroom te suñu boroom nag jamono ji dénk ko kenn kudut man mii waaye ci tund woowu di làmbaay nag yow moomu laa ko ko fa dénk sëriñ alin Diouf jóg bëgg a demaat seexul xaddiim na ko eggaatal suuf Aline Diouf yow mal xiyaam suñ boroom dana ma cër te yow mii danaa la cër kon kàddu yii la sëriñ Aline Diouf làmbaay jote ngërëm ci dëkk boobu di xumaag ci réew moomu di gànnaar seexul xaddiim nag ñaanal ko ne ko mën ngaa jóg dem sëriñ Aline Diouf làmbaay nag jóge nag ci dëkk boobu di xumaag ñibbisiwaat nag ci réew mii di senegaal ci fi mu cosaanoo du tund wiñ tudde nag làmbaay bim ñëwee sëriñ Babacar Ndiaye Thiargane sëriñ Babacar Ndiaye Thiargane laaj na ko lan la ko seexul xaddiim wax mu nettali ko lii ko seexul xaddiim wax sëriñ Babacar Ndiaye Thiargane di ko xamal ni bu doonee ay mbokk rek am nga ko macha allah ndax sa famille kër waajur wu góor ay buur lañ famille bi nga bokk ci wàllu waajur wu jigéen tun wi di làmbaay ñépp la fi xam kon loo fi bëgg du la fi jafe waaye man mii nag maa nekk sa magum taalibe wala sa mbokkum taalibe kon nag bàyyil ma barkeelu ci yow ngir taxawal la lii di kër demal làmbaay nga toog fa ci la sëriñ Alioune juuf làmbaay nag ñëw toog lii di làmbaay sëriñ Babacar Ndiaye Cargaan jël nag jarbaatam bu ñuy wax soxna Mati Diouf jox ko kii di sëriñ Alioune Diouf làmbaay ngir mu denc ko kon soxna Mati Diouf jarbaatub sëriñ Babacar Ndiaye Cargaan la woon moom la sëriñ alin Diouf làmbaay njëkk a denc comme soxna te sëriñ Babacar Ndiaye Cargaan da ko doon barkeeloo ci ngërëm lim am ci Xaadim dëkk boobu nag di làmbaay nag bi fa sëriñ alin Diouf nekkee nag kii di sëriñ Babacar Ndiaye Cargaan ak sëriñ Moor Maane Mbay fekk nañ ko fa ndax moom mooy seen mbokkum taalibe booba itim buur bu ñuy wax Teñ Tanoor ma nga fa Teñ Tanoor moomu nag am na chef de protocole buñ tudde woon Ndeela Kumbel Ndeela Kumbel moomu nag chefu protocole buur bii la woon di Teñ Tanoor Ndeela Kumbel moomu nag di chef de protocole buur bii di Teñ Tanoor amoon moo mujj fekki sëriñ alin Diouf Lambaye jébbalu ci moom kii di sëriñ Babacar Ndiaye cargaan nag daat koy wat lii di ab nel nakate loola nag metti na waajuram wu jigéen wii di Ndella Kumbel mu dem wax ko kii di buur bi di Teñ di ko xamal ni alin Diouf Lambaye daal Babacar Ndiaye cargaan ak kii di Mor Mané Mbaye seen loole ñuy woote jël nañ sama doom bi ma am di Birima Ndella dugal ko ca loolee ñu nekk ba wat ko sax lii di ab nel tur wa ma ko tudde di Birima la kii di Alioune Diouf Lambaye soppi na tur wa tudde ko kii di Ibrahima loolu daal metti na ma lool loola itim bi ko chef de protocole bii di Ndeela Kumbel waxe buur bii di Tentanoor Tentanoor itim yëfi itim soge na ko lool ba tax daal mu ne ci misaal daal tund wii di Lambaye ñett ñii fi ñëw daal bu doonoon ab luwaa la buñ fi tëral teggi nañ ko ci misaal maanaam man ne ne ñett ñi dañ koo yab ndax lan moo tax mu fiy indi ab luwaa ñoom ñi luwaa bu wuuteeg bi mu fi def ci la nag buur bi woote nag am ndaje buñ tudde urgent ngir na xool lan moo tax ñett ñii daal fas yéene fee indi lu wuuteeg li fiy dox ginnaaw ndaje moomu mu woote woon ci làmbaay ci la wax ne nag képp koo xam ne nii ànd nga ñetti muritu seexul xaddiim yi daal lu la ci fekk yawa waaye képp koo xam ne nii nag li mu wax nag ci nga ànd macha allah ndax buur kat ku ànd ak moom di buur ginnaaw ci ndaje mooma nag la wutaat nag lii di kees ci biir këram organiser fa fab nag paaka bu taq dereetam woote nag ndaje mi ñépp nag dajee ca tund wa kuñ tudd sa tur laaj la ba xam dangaa ànd ak Babacar Njaay cargaan Aline Diouf ak Mor Maane Mbay waaw wala déet soo nee waaw ñoom nga àndal ñu dugal ci kees gi mel ne dañ laa rendi génne paaka bu taq dereet woowaat turu kaneen soo nee nag buur yow laa àndal ñu bala ci digg pénc mi ngay wëreeloo ko gëweelu ndax kat ku jege buur di buur def nañ ko ay niti nit ci la nag ñetti muritu seexul xaddiim yi daal de nañ wax nag kii di tañtanoor dëgg ndax kat ñun lii ñuy woote moom mooy dëgg ci suñuy xol te ñii ànd ak ñun lii ñu gëm ba tax ñu ànd ak ñun mooy dëgg ci seeni xol ci lañ nag jóg nag wax buur bi dëgg di ko xamal ne yow li ngay woote du dara ñun ñii nag li ñu nekk moom mooy dëgg coow loolu nag topp nañ kook buur bi ci misaal wax jooja nag mu mujj tas jataay ba may nag murit yi itim nag ci tund woow di làmbaay jàmm ginnaaw bi nag la ñëw wax ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim di ko xamal ne buur bii di tañ tanoor de ma nga ca tund woow di làmbaay di bundu xataal sa ñetti murit ya muy Babacar Njaay Cargaan Aline Diouf ak Mor Maane Mbay ci la ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim waxee nag ay wax boobaak léegi buur bi ay làmpam fay na te takkaatul ba nëgëni kon lii moom xew na cheikhul xaddiim joxe ngërëm kii di sëriñ Alioune Diouf Lambaye nag bi muy xew sëriñ Touba seexul xaddiim demagul ci géej gi ginnaaw bi nag la fi seexul xaddiim bàyyi ko ci fukki fan ci mois de août ci atum 1895 dem nag ci réew mii di Gabon ngir dem ci tukki bi laataa muy dem Gabon woolu na kii di sëriñ alin Diouf Lambaye di ko xamal ni day dem ci ab tukki waaye nag dénk na ko kii di maam Thierno Ibrahima Faati sëriñ Alioune Diouf nag daa àndoon nag maam Thierno Ibrahima Faati ba lii di Daaru Muxti sax amoon na fa lii di kër sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim jóge ci géej gi ñëw nag jaar fi mu jaar amaat fi takk-takk ak mbaaxaan demaat nag ci réew mii di gànnaar waaye sëriñ Alioune Diouf Lambaye demul gànnaar ci yoonu gànnaar woowu waaye daana yónnee bi sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim jógee gànnaar dem ca yéen sëriñ Alioune Diouf Lambaye daana ko fekk ci dëkk boobu di ca yéen ginnaaw ca yéen njaareem waaye sëriñ Alioune Diouf Lambaye lim daa ñëw njaareem nag di ziyaare si ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim bariwul woon lool lool Seexul Xaddiim nag demoon demoon na nag ba remarqué ne daal sëriñ Alioune Diouf Lambaye li muy ñëw ci moom bariwul mu yónnee ndaw ci daaru muxti ngir ñu wool ko kii di sëriñ Alioune Diouf Lambaye ka seexul xaddiim yónni woon ngir mu wool ko kii di sëriñ Alioune Diouf Lambaye sëriñ ma Massayer Sylla lay wuyoo sëriñ ma Massayer Sylla ginnaaw bu mu ñëwee daaru moxti di woosi kii di sëriñ Alioune Diouf Lambaye fekku ko fa waaye ñu ne ko kër Alioune Diouf Lambaye ma nga nee waaye nag Alioune Diouf Lambaye dafa naweti ci dëkk bu ñuy wax mbaadaan foofa lay baye kii kii di sëriñ Massaer Sylla jóge daaru muxti nag dem baa daan fekk fa kii di sëriñ Alioune Diouf làmbaay di ko xamal ne ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadiim moo koy woolu ci njaareem sëriñ Alioune Diouf Lambaye ànd ak kii di sëriñ Massaer Sylla ñëw fekk si ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadiim waxtu guddi lañ egg si njaareem fanaan bët set ku baax ki ubbi sëriñ Alioune Diouf ziyaare Seexul Xadiim di ko xamal ne Alioune man daal seetlu naa ne bi ma ñibbisee ab Serigne Diouf Lambaye di xamal ku baax ki Serigne Touba ne ko bi ngay dem ci géej gi yaa jàppoon sama loxo bu dëgër jàpp loxob maam Ceerno Ibrahima Faati ne ma Alioune juuf dénk naa la ceer Ceerno te boobaak léegi nag dégguguma nga wax dara Seexul Xaddim di ko xamal ne Ceerno de daa am fulla waaye ba may dem yoon wépp laa ko dénkoon waaye Alioune juuf ñibbisi naa ci la ko Serigne Alioune Diouf Lambaye waxee na ko itam man ñibbisi naa kon ca yoon woowa Serigne Alioune Diouf Lambaye eggale jiwut nawet wet ba njaareem googu la toog njaareem googu sax sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim wutaloon na ko fa kër kër googu kenn ci ay taalibeem la ko rafaatale ci kër gu mag kon lii moo indiwaat sëriñ Alioune Diouf làmbaay ci ëttub ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim kii di sëriñ Alioune juuf Lambaye sanc na nag ay dëkk yu takkoo takku ginnaaw làmbaay googu ko Seexul Xadiim waxoon mu dem fa ginnaaw kër googu mu amoon ci Lambaye sanc na nag dëkk bu ñuy wax lobet lobet nag lañ ko gën a xamee sanc na itam dëkk bu ñuy wax mbaadaan mbaadaan gi sax la ko seexul xaddiim wooloo mu ñëw fa ci njaareem ginnaaw mbaadaan sanc na dëkk bu ñuy wax ngoy kër itam amoon na ko ci dëkk bii di bàmbay sancaat na itam dëkk bu ñuy wax soya ginnaaw soyaa sanc na dëkk bu ñuy wax bàgg juuf bàgg juuf mii sax digganteem ak bàmbay juróom ñaari kilomètre moo dox ci diggante bi bàgg juuf googu sax la nekk ba atum 1936 ci 1927 bi seexul xaddiim di ñibbi ñibbisi Touba sëriñ Aline Diouf Lambaye mu ngi ci dëkk bii di Baggu Diouf 1936 nag la jóge bàggu juuf dem nag ci dëkk bii di Saalum ca wetu mbokkum taalibeem ba di sëriñ Mat Jaw Paxa juróom fukki doomu aadama la àndaloon ca yoon woowa booba sëriñ Mat Jaw Paxa mu ngi ci dëkk bii di Gosaas Gosaas googu la ko sëriñ Mat Jaw Paxa booleek bennum naar ab commerçant bu mag la woon Habib la naar ba doon wuyoo ginnaaw bu Habib waxtaaneeg sëriñ Aline Diouf di ko xamal ne ne bu sañoon daal bis bu fi nekkee ba am ay tool lu muy jaay na ko ko jaay ci wàllu gerte sëriñ Serigne juuf nangu loon na ko naar boobu di Habib ci la ko abib xamale itam ne ñoo ñu nekk Gosaas sama oto yi di jaabante diggante Gosaas ak Kolobaan heure ñu wàccee marchandise Gosaas di delluwaat Kolobaan danañ la mën a yóbbul sa juróom fukki nit ñi kon naar boobu di Habib ay otoom moo yóbbu juróom fukki ñooñu sëriñ Alioune Diouf àndaloon ci dëkk boobu di Kolobaan ñuy wax bokkoo ci bokkoo ci googu sëriñ Aline Diouf làmbaay amoon na fa suuf ci lu tolloog ñetti ginnaaw bi nag la am ñum fa bàyyi jàllaat ca wet ga ci dëkk bu ñuy wax mure mure googu ñeenti kilomètre la fa sëriñ Alioune Diouf Lambaye amoon comme suuf ginnaaw mure googu am na ñum fa bàyyi jàll nag ci dëkk bu ñuy wax bukki barga bukki barga boogu nag la nekk ba atum 1939 jàpp lii di 1940 1940 googu la yónni doomam ja di sëriñ Moodu juuf ci chef de canton bi nekkoon ci dëkk bii di Gossas di ko xamal ni bu sañoon daal bukki barga boobu ñu bënnal ko fa lii di ab teen ndax soxla na fa lii di ndox chef de canton bi di xamal ndawul sëriñ bi di sëriñ Mat Juuf Làmbaay ne ko kilifa gi de bi mu egsee ci suuf sii ma yilif ak léegi xam naa ne yokk na lii di suuf si ak tund wi waaye nag guerre mondiale bi moom moo tax budget bi ñu yor yaakaar nañ ne daal mënuñu cee bënnub teen maa ngi sàkku ci moom bu fekkee ne nangul na ma ko na ñëw fii ci ñii bi ma jox ko fi suuf bu fekkee na fi toog bu geer bi jeexee ñu mën a am budget bu ko bënnal lii di ab teen ginnaaw bu sëriñ Mat Diouf jóge ci yónneen boobu ñëwaat na nag ci sëriñ Aline Diouf làmbaay wax ko lii ko chef de canton bi wax sëriñ Aline Diouf Lambaye fekk si na chef de canton bi ci bëgg-bëggam bi kon ginnaaw bi la jóge Daaru Salaam googu ñëw nag ci ñii bi kii di chef de bi jox ko fa lii di suuf mu àndu lu tollook un kilomètre cinq cent sanc fa nag ab dëkk bu mu tuddee ñii bi Lambaye googu sëriñ Alioune juuf nag foofu la toog demul fenn ba ni mu génne lii di àdduna xanaa benn bis rekk bu ko mu mu dul Fadal Mbàkke wooloo ci tuubaa di ko xamal ni sëriñ Touba seexul xaddi moo ne woon naa dëkk ci Touba bu ëllëgee lum am cër ma ca ma xam ne nag sama kër gi di Touba yow mi kenn nga ci ñi àndoon nag ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadiim te dara mu ngi ci yow moo tax ma indi la Touba ngir nga defal ma ci ñaan bi ko sëriñ Alioune Diouf ñaanalee ci kër googu ba noppi keroog lii di giléem ak ñaari saakuy ceeb la ko mu dul Faadal Mbàkke jox keroog bi muy dem Cheikh dul Faadal xamal ne ko ne fi tolloog 28 dem suuf soosu jox naa la ko ngir nga mën faa dëkk sëriñ Alioune Lambaye jaar na fa doomam jii di Serigne Thierno Diouf Lambaye nag moo fa njëkk a dëkk fii Serigne Mat Diouf Lambaye dëkkee Cheikh Mamadou Fadal Mbacke moo ko ko jox tokkoorub ñaam bi la woon ku ñuy wax Mbacke Mbay moo moomoon foofu kër Serigne Mat Diouf Lambaye googu lii di station bi nekk ci buntu këram sax ci biir kër gi la bokkoon natt bi rek moo génne mbedd mi wàññi kër gi Serigne Alioune juuf Lambaye na delluwaat ñii bi làmbaay ci diiru fukki at ak juróom nekk na ko fa foofu itam la di génn nag lii di àdduna ci téeméeri atam yu teg benn wala ñaar sëriñ Alioune Diouf Lambaye mi ngi génn àdduna bisub ajjuma fukki fan ci weeru koor ci atum 1370 ci gàddaay gi ajjuma fukki fan ci weeru koor ci atum 1370 ci gàddaay gi dëppoo muy vendredi 15 juin 1951 vendredi 15 juin 1951 sëriñ Alioune Diouf Lambaye wuy ji suñu boroom jëlee ko ci otob doomam jëwriñam ji di sëriñ Mat Diouf Lambaay mu ànd ak rakkam ja sëriñ ceex Ceerno Diouf Lambaay ñu jële ko ci ñii bi Lambaay indi ko ci dëkk bu sell bii di Touba ci xilaaf ak Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke wax sëriñ Mat Diouf làmbaay ñu fanaanal kii di sëriñ alin Diouf làmbaay ci barabu Cheikh Issa jenn lañ ko fanaanal Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke wax ne képp koo xam ne ni yaa ngi ci dëkk bu sell bii di Touba na nga dem gunge sëriñ alin Diouf Lambaay ca kërug dëgg ga kii ko ñeenteelu xalifa sëriñ tubaa seexul xaddiim la sëriñ fàllu mbàkke jox ndigal ngir mu dem jullee kii di sëriñ Aline Diouf làmbaay kon ci samedi bi lañ jébbal sëriñ Aline Diouf Lambaye lii di boroomam sëriñ alin Diouf Lambaye ay xalifaam nag nii la tëddee sëriñ du Diouf Lambaye tem duppee ko ko baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim moo ko wutu ci atum 1951 ba atum 1991 1991 ba 2006 nag ñaareelu doom doomam bii di sëriñ Ceerno Juuf Làmbaay itam duppee ko maam Ceerno Ibrahima yi moo ko wuutu ñetteelu xalifa sëriñ Alioune Juuf mooy ku ñuy wax sëriñ Mbay Juuf sëriñ Babacar Njaay Cargaan la ko tuddee moo ko wuutu ci atum 2006 ba nëgëni ñuy ñaan turandoo sëriñ Babacar Njaay Cargaan woowu di sëriñ Mbay Juuf suñu boroom gën a guddal aw fanan wéral ay cëram te yàggal ko ci toogaayub sëriñ Alioune Juuf Làmbaay sëriñ Alioune Juuf Làmbaay nag am na juróom benn doom yum tudde ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim moom it am na bis buñ koy fàttaliku ndax fukki fan ci weeru koor gi mu génnoon àdduna la doomam ji di sëriñ Mat Diouf doon woote ci ñii bi làmbaay ginnaaw bi nag la Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke tere woon bis yi mag ñi génn àdduna ñu di leen ci fàttaliku loolu itam njabootu sëriñ Alioune Diouf déggi wuñ ko woon ak nopp bu tëx kon fekk si woon nañ mu dul Faadal Mbàkke ci tere yooyu ginnaaw bi nag la leen Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke xamal ne mën nañ sax di ci wàcce lii di ay kaamil waaye bis bu buñ koy fàttaliku moom di ci woote déedéet lool itam njaboot gi ñi ngi koy sàmm ba fukki fan yu ne ci biir weeru koor ñu fàttaliku seen waajur wa ci njàngum alxuraanul karim kese am na nag yeneen bisit yu takkoo takkoo takku yoo xam ni ay sëti boppam ñooy fàttaliku seen maam ja ngir boole gum leen boole ci seexul xaddiim kii di cheikh sàmba Mbàkke di caatum Mamor Anta Sali Mbàkke di rakk ji seexul xaddiim mujjee amitim kii di sëriñ Alioune Diouf Lambaye tudde ko doom ndax sëriñ sàmb Diouf mi ngi fi ñuy ñaan ci liggéeykatu sëriñ Touba Seexul Xadim bi ki jote woon ngërëm ci dëkk boobu di xumaag ci réew moomu di gànnaar ki fob juróom benn doomam duppee ko sëriñ Touba Seexul Xadim yàlla nañu ko yàlla fayal te yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem te saafara